six cent soixante dix huit voix xam nga ñaata la pourcentage zéro virgule cinq pour cent lii la la sénégalais yi nattal sénégalais yi teg nañ la sa place waa Mermoz Sacré-Cœur teg nañ la sa place te muy commune bu ndaw ci biir dakaar munoo ko gañee zéro virgule cinq pour cent nga am sur les neuf candidats yow sixième la jël Bennoo ñoo la raw Yewwi ñoo la ñoo la raw parti socialiste amoon nañu liste ñoo la raw gox yu bees ñoo la raw waaye am nañ ñu ñuy wax alliance des valeurs éthiques et citoyennes ñooñu sax ñoo la raw avec nga jël sixième kooku moo taxaw tey di di tëkku le président de la république Bassirou Diomaye fay am naa Diomaye moom malheureusement du du nelaw lu bëri mais bu doon nelaw moom xam naa day biddanti parce que loolu mënu ko teree nelaw mais bi ñu jógee ci local yooyu même local yooyu nga ne candidat nga ville de Dakar mënoo sax defar liste ñu teg ci juróomi weer kaay ñu dem législative juillet 2022 munoo am parrainage munoo am parrainage ay coalition yu mel ni bunt bi ma leen di saluer au passage am nañ parrainage yow munoo am parrainage législative 2022 amoo ñu jëm présidentielle 2024 munoo am parrainage waaye yéen kii ban poids politique la am lu dul yor benn groupe de presse am bu xëyee suba ba ngoon ñu koy xalamal muy wax di fëgg dënn te fu jongante ñëwee bu demee bu dee parenage la du am mais alhamdulilah ren amul parrainage léegi nañu dem ba xool ba xam est-ce que dina mën a jàllee plus fort reste bu dee tête de liste nationale bu dee am na am na fit sax mu ñëw département Dakar mu ñëw xëccoo liste départementale bu Dakar pour nekk tête de liste ci liste boo xam ne da ciy bokk Bougane Gueye dani les Sénégalais t'ont remis à ta place depuis 2018 yaa ngi activé wu ci champ politique bi élection lay tax nga participer sénégalais yi sax dañ la présélectionné wul pour nga nekk candidat yi nga xam ne amul présélection soo demee sa yow li ñu lay natt yow personnellement mooy yow sa poids au Sénégal 675 voix la am dama leer na ma ne wàññeeku na loolu mooy sa poids politique il est temps qu'on se respecte suba ba ngoon stratégie bi mu jël mooy. am na ñu ko xelal ndeysaan am Sénégal jëriñ ñoo xam ne dañ lay induire en erreur ne la Ousmane Sonko li mu am li ko may yëpp mooy ni mu doon attaqué Macky Sall dafa am courage kon yow il faut nga attaqué Macky Sall di dóor Sonko ci bu baax parce que loolu mooy tax sénégalais yi déglu la waaye ñu fàttali ko nag ne da ngaa amnésique rek deux Pastef 2014 ba vingt 2021 xam nga la moo ko caractérisé opposition argumentée et documentée. lépp ci xam-xam nañ ko doon teg mooy parti bi ëpp cadre Sénégal ba ñuy réformer code minier bu mille 2016 Pastef dañ cee bokk indi seen xam-xam président Pastef nekku fi di coo dafa bind livre pétrole et gaz au Sénégal chronique d'une spoliation 256 pages man livre boobu laa njëkk liir moom moo ma ba man ma dem def master en droit des énergies et des mines parti boobu noonu. ñooñu noonu lañ opposé woo ba dem ba i Sall dem ba mer parce que mënu leen topp moom ak régime am si débat wu idée yàgg na leen woo ci débat ci plateau ndax ku jàkkaarloog moom plateau mu effacé ñu fekk nag ci terrain wu songu ko ci ay mërs ak jug pour éliminer ko comme un adversaire politique jaar par la justice loolu moo tax Pastef jug nag taxaw woote résistance kon résistance su Pastef ak résistance Ousmane Sonko du résistance su Bougane Gueye Dany de il faut mu leer résistance yi du benn ci contexte waaye résistance yi du benn ci façon def sa point de presse di nga ma rey mbaa ma rey la non Ousmane Sonko ba muy taxaw naan di nga ma rey mbaa ma rey la dafa woote Kër Massar ñoom jëy pro génn ay milliers de sénégalais fekk si ko te joxuñ kenn cent franc yow wooteel suba théâtre national dañoo Sorano ñu xool ñaata ñoo lay fekk si. wooteel suba foyer bu Grand Yoff ñu xool ñaata nit ñoo lay fekk si kon président Ousmane Sonko bokkul ak résistance su Bougane Gueye Dany Ousmane Sonko n'est pas et ne sera jamais ton alter ego il faut loolu leer pour ku ne xam kan mooy sa morom di wax nag ne am na ci loo xam ne jàpp na ne stratégie la parce que wax ji bu bëri bi yëpp ak virulence bi yëpp parce que am na lu mu jàpp ne moom lañ koy reprocher su des faits mu ne kaay leen ngeen tëj ma ci wax pour ma victimiser wu Bougane Gueye Dany man maa lay laaj lan nga wax ba bañ ku la tëj ci jëf lan nga jëf ba bañ ku la tëj ci wax ba bëgg ku tëj ci wax lan nga def sur des faits yu ñu lay reproché ba bëgg ku la tëjee wax mais bu ñu la waree tëjee jëf jëf nañ lay tëjee kenn du la tëjee wax man maa la wax loolu c'est extrêmement important li may wax moom xam na ko kon nag yamal sa place nga liggéey ba mën a am parrainage entreprise yi nga yor wala alal bi nga amoon ndeysaan parce que buy wax da ngeen di sentir ne en lay waxee moo tax psychanalyste yi dañu war a xool nit ki est-ce que feebarul parce que day day souffrir d'une maladie grave te maladie bi lan la mooy maladie wu haine ak jalousie mooy mooy Bassirou Diomaye Faye gis nga ni mu doon waxee démb parce que non ce jeune là maa maa ko ko magee ñetti at Ousmane Sonko ñoo bokk génération pourquoi ñi sénégalais yi topp leen xër ci ñoom bëgg leen fonk leen ñu crédible fu ñu dem ñu tijjil leen man mënuma am loolu te man man jàpp naa ne am naa alal loolu Sénégal doo ko fi mës amee parce que buloo ci bëtu sénégalais yi te sénégalais xam nañ lu tax crédible xam nañ la moo tax nga dem bay mer bay saaga parce que lu tax sénégalais yi wuñ la wóolu ndax musuñ jàpp ne opposant nga loolu ñun ñun mënuñ ci dara kon nag fi ñuy daanelee ci chapitre Bougane parce que benn chapitre la woon bu ñu war a clôturer pour jàdd ci leneen mooy Bougane Gueye Dany yamal sa place boo génnee suba huit huit heures quinze ñu def point de presse ñun JPS tontu la man maa la wax loolu et on te dira ñi nga bëgg jàkkaarlook ñoom ñoom ñu mus a nekk sa alter ego et na nga xam ni li la war mooy yor say entreprise ci façon bu sell ba sénégalais yi wóoru say entreprise waaye nag li la war mooy nga liggéey ba mën a am parrainage bis boo amee parrainage après sénégalais yi dinañu la mën a bàyyi xel nga war a am voix au chapitre parce que nag démocratie c'est la loi de la majorité yow mënoo jàll parrainage nga bëgg am voix au chapitre mais même dans les sociétés africaines traditionnelles balaa ngay mën a wax nga mën a am xam-xam mais nit koo xam ne buy wax dafa doyadi doyadi doyadi il est d'une vacuité intellectuelle extraordinaire il est nul il faut le dire du xeebeel mais waa ji dafa cuune ndax mënu la aligner benn idée boo xam ne ça tient ci kanamu benn esprit mais bopp bi moo rangé wul ngeen baal ma ci wax ci non c'est ça parce que bopp bi moo rangé wul mun ta wax ñaari ñaari ñaari argument yu dëgër munoo def calcul sax bu jaar yoon un plus un xamoo ne égal deux après nga bëgg a taxaw nga ne yow yaay jàmmarloog régime bii nga xam ne booy énarque yi taxaw yi non man yërëm naa la kon nag yamal sa place li ma gën a yéem nag ci li mu wax démb mooy quand il dit que Macky moo ñu moom laa mere parce que moo ñu jàllax booy yi nga xam ne mënuñu kon moom ñun ñun Macky Sall moo ñu fal parce que ñun Macky Sall ñaar lañ mun terewee falu wala bi ci jiitu mooy Macky Sall xeexoon ak ñun ba duñ bokk ci élection yi loolu la jéemoon mais mujj ko am parce que xañ na ko président Ousmane Sonko Bassirou Diomaye fay nekk candidat kon dafa bëgg ne Macky Sall dafa waroon def tout ba ñun du nekk candidat par une élimination judiciaire ou politique kii est-ce que démocrate la wala Macky Sall kon jour élection yi dafa waroon def tout pour ñun bu ñu gañee mooy lan dëpp la suffrage populaire parce que ñaar yi moo fi am Macky bu ñu mënul tere nekk candidat ñu dem élection Macky Sall mënul tere ba 54 pour cent yi am parce que moom moo taxawoon ne yi ci la bokk kon ça veut dire que sénégalais yi ñoo voté 54 yi mu taxawaat ne Macky Sall moo tax ba ñu ñu falu kon Macky Sall moo ko mere te mu taxaw naan ay nitam ñoo ñu votel ci ay localité xanaa moom day mere ay nitam après nga taxawaat nga ne Macky Sall nga mere mel ni Macky Sall mënoon nañu teree falu kon yow day wane yow esprit bi nga am ci démocratie mooy nit ku yor pouvoir dafa war a xañ ku ko neex du falu parce que kii incompétent la musuma gis ku cuunewee nii musuma gis une telle inculture démocratique et politique kooku taxul ba kenn dellu ginnaaw kooku président Ousmane Sonko président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye duñu ko tontu ndax taluñu ko ils sont sur des enjeux stratégiques yoo xamante ne franchement ñun ñi sax waruñu ko woon tal waaye am na loo xam ne duñu ko bàyyi parce que il y va de notre responsabilité parce qu'on nous a responsabilisé à la tête du mouvement des jeunes patriotes et nous devons face aux fossoyeurs de la République mais ñun ñi sax nawloo wuñ ko kon bu dee wóolu na boppam tuuti man de Pastef maa fa gën a néew xam-xam maa fa gën a nekk xale maa ngi koy invité à un débat public